بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه مبكي noo دي نيو di nuyu ci nuyoob lislaam di assalaamu di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala sunu kàddu fekk leen ci jàmm di amal mbégte ci àndat ak yéen ci jotaay yi nga xam ne noo ngi koy amal ci ay bis yi muy jotaay yu jëm ci xam-xam ak jàngale mbindum sëriñ bi ak ko doxinam ngir nu mën a roy ci moom di sant bu baax mbokk yu baax yi fi jot a jaar sotti fi xam-xam yu sell yu nu mën a jariñoo ki ci mujj rekk di sunu mbokk sunu xarit sunu sëriñ di sëriñ Mbakke Mouhamad Lo mu indiloon ñu waxtaan wu am solo démb ci sëriñ Tuuba ak liggéey xidma xam na bu màggal gi jàllee ba mu gën am jot danañ ko aajoowaat ngir eh, bunt bi nga xam ne moo ma dañuy am ak lëkkaloo muy himma te yonent bi sallallahu alayhi wa digaloon ko ko ngir mu yar ci ay taalibeem incha allah dinañ ci ñëwaat ak moom ngir mu indil ñu ci ay njàngat yu am solo di ko ñaanal borom bi defal ko tawfiix ak jàmm moom sëriñ Mbàkke ba li mu naan liggéeyal lislaam mu am kàttan gi ak man gi ak fekke gi loolu yomb na yàlla yàlla na ko defal ak mboolem jullit ñi ak ñi nga xam ne ay ndaw lañ ci réew mi tey dundal xam-xam di siyaare tamit sëriñ Sam Bousso mi nga xam ne moo ñu ñëwaloon ci sëriñ Touba ak sunna moom itam mu indil tomb yu am solo di ko sant bu baax ci yitte ju kawe jooju di ziar tamit Serigne Modou Kama di ko sant ci tomb bi mu lon muy Serigne Touba ak tasawuf waye tamit noonu la ñuy sant Serigne mustapha Sylla mi ñu dikkaloon ci Serigne Touba ak alquran ak seede yu rafet yi mbokk yi defoon ci moom mooy borom xam-xam yi ak moom di ay kàngam seede yi ñu def ci moom noonu la ñuy siyaare suñu sunub Serigne. sëriñ Cheikh Awa Balla Gueye moom mi ñu indi doon sëriñ Tuubaa ak Sharia di ko ñaanal yàlla mu yàgg sunu kanam lool yàgg noo gunge ndax day mag moo xam ne yittewoo nañ ko lool rawatina suñu jamono jii noonee tamit lañuy sante sëriñ Souleymane Badiane moom itam dikk na fekk tomb yu am solo waaye tamit sëriñ Mame Mor noonu lañ koy sante ak mbokk yi leen dalaloon tamit ku ci mel ni sëriñ Fallou Silla ak sëriñ Moustapha nu am tey gan gu tedd gu màgg muy sëriñ Cheikhouna Mbacké Gànnaar sunu ganu tey di ku ràññeeku ci néegu xam-xam di sëriñ Cheikhouna Mbacké Gànnaar moo tax jotaay yi bi mu amee xel yi dem ci moom waaye tamit yàlla dogal na nu ko ci moom tomb bu am solo ngir mu waxtaanal ñu ko tomb boobee mooy jikko yu yàqu yi ba tax nu am crise de valeur jikko yu yàqu yooyu lan mooy sabab si bëgg nañ cee dikk ak sëriñ Seexuna ak lan mooy solution bi ci njàngaleem Seexal Xadiim bala ñoo ñëw ci tomb boobu dañuy xam ne Serigne Cheikhouna ci ak tënk muy doomu daara bi mu tollee ci njàng ay waajuram yóbbu nañ ko ci daaray alquran yàlla dogal mu nekkandi ca daara ja ba mokkal alquran bind ñaari kaamil ci loxoom ndeyjooram jébbal ko ay sangam ci la laxasee dem ndar ci daaray tey sirul asir jàng ji fa xam-xam ba li ëpp ci njàngam foofee la ko jàng jamono jii nag lii yitte mooy jàng ak jàngale walla sax gëstu ak jàngale yokk ab gëstoom bu baax a baax kon dañuy bàyyi Serigne Cheikhouna mu nuyoo bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى خير قديمه عبد الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولتنظر قلبي بفتح ولشرح رب صدري بفيض ماء معيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki daari دي الحق صابت والباطل زاهق maa ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu sell bu màgg boobu di ñaan yàlla li ma làmboo di jàmm di yërmande di barke yàlla nu ko yàlla boole defal am mbégte loolu itam fas waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk wala ak fàttalante lay doon e, loo xam ne dañ koy mën a jàngataate ci dunduk sëriñ bi dunduk sëriñ Tuuba nga xam ne lépp dafa nekk ay njëriñ di ko waajale bisu di fi safar bi nga xam ne ci la jëm di ñaan yàlla àgg ci ak jàmm te yàlla defal nu feex ak aajo ju faju ban man koo defee ci anam goo xam dana gërëm loo boroom waaye dana gën a dëppoog tam ci inam ko bëggee woon di ziyaare waa daal ji yëpp di jël nuyoo bi ak ziyaar bi di ko teg ci loxol ki nga xam ni euh, moom mooy taqdim émission bi di am di Moustapha Kamal Ka di ko sant bu baax itam ci euh, boole gi nga xam ne boole nañu ko ci liggéey bi waaye di jëfal mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne jaar nañ fi yëpp itam wax dëgg yàlla tasaare fi xam-xam boo am solo mooy loo xam ne ñëpp mën nañ cee jànge waaye mën nañ cee jëriñoo itam kon bu ko defee dañ doon dugg di nuyoo rek bu ko defee ñu dal dugg ci waxtaan ni balaa balaa muy gën a guddi incha allah ñu am di Moustapha. Euh, jërëjëf Serigne Cheikhouna euh, noo ngi lay fay nuyoo di la masawu coono ci guddi yi ñu toll waaye coono yu ànd ak bànneex la mooy tasaare xam-xam ak liggéeyal seexal xaddiim ndax yéen ñi féete boori Touba moom te nekk ay boroomi xam-xam seenu màggal tàmbali na bu yàgg yàgg sëriñ eh, Seexuna dañuy njëkkante waxtu wi ngir dugg ci thème bi mooy dañoo bëgg ak xamle ci tedd ngay jikko wala jikko ju baax suñ ko waxee mooy lan waaye tamit buñ ne ak yàqu teem luñ ci jublu maanaam buñ ne jikko yi de dañoo toll ci crise dégg dégg loolu lan lañ ci jubli ci xamle. bisimilah rahmaani rahim waaw koy jërëjëf sëriñ Abdul Moustapha ci laaj ba am solo boobu waaw bu dee jikko de taarifaat yi ci borom xam-xam yi indi bari na ci niñ koy xamle waaye ci ak tënk ci ak gàttal mënees na ko tënk ci li ñenn ñi wax ni jikko de melokaan la woo xam ne yàlla daf koy bindee doomu aadama mooy loo xam ne dafay sax ci ak ruuxam wala dafay nekk ci bakkanam mooy loo xam ne ci ak baaxam ci la nit ki di baaxee waaye ci ak yàqoom itam ci la nit ki di yàqoo nga xam ne ak dundam tayam ak ëllëgam lu ne mën na cee bañ a jekk loolu yàlla def mooy loo xam ne itam dañ koy yar nga xam ne bu fekkee dañ koo yar ci ak ndawam ci lañ koy tàggat man di ko dindi ndànk-ndànk bu fekkee jikko ju bon la ndax bu dee lu baax dafay jeexital muy jikko ju baax ju nekk ci nit ki dafay jeexital ci ni muy jëflantee nga xam ne lépp jëf xel da koy rafet da koy rafetlu waaye ci njàngalem sariya itam daf koy di ko jooju saa bu nekkee ci nit dana jeexital ci moom imma itam mu nekk loo xam ni melokaan la ko yàlla bindee mu mel ne habitude la ci moom bu fekkee dafa nekk lu ñaaw nag moom itam buy jëf day day day jeexital ci jëf ja nga xam ne ci wàllu jëflante dafay dafay dafay naqari dareet dafay nekk koo xam ne dafay nay nekk koo xam ne jëfam daal xel da koy ñaaw la waaye sareexa tam daf koy ñaaw la bu ko defee ñu ne kii jikko ju bon moo nekk ci moom waaye dafay lu yàlla def ci nit loo xam ne yi nag bu fekkee dañ koy suuxat ci moom ma ànd ak ñu ban bu fekkee jikko ju bon la ñu koy suuxat jikko ju day gën di dëgër ci moom ba màggaalee ko bu ko defee loolu day dem ba day nekk chronique ci moom nga xam ne kenn dootu ko mën a dindi waaye nit nag yàlla dafa def li nekk ci moom manees na di ko dindi ci moom itam ci jamono yi nga xam ne ci lañ ko war a dindee ndax xad yanfaul adabul awlaada fi sigarin wa laysa yanfauhum min baadihi adabu bu ne teggin mooy formation bi nga xam ne bu ci nit li nga bëgg ci moom da koy def ci moom li nga xam ni dafa nekk ci moom te baaxul itam nga jéem di ko dindi ci moom bu ko defee loolu nag mooy ko bu ne jikko ju baax nag mooy li nga xam ni nit ki ba koy def da day day mën a jëriñ waa jamonoom day mën a jëriñ itam naka noonu ab société am loo tax nga dégg benn waykat di wax ni nit ñi li seen valeur tax seenug des ci àddina di am njëriñ mooy jikko yu baax waaye jikko yu baax bu demee ba amatul seenug dund ci àddina wala seenug des amatul benn njëriñ wa innama al umamu l axlaaqu ma baqiyat fa inhumu dahabat axlaaquhum dahabu looloo tax nag jikko jooju loolu la ñuy tuddee jikko kon des ko war a suuxat ci doomu aadama ak di fexe itam di ko gën a évaluer ci bu fekkee jikko ju baax la waaye bu fekkee lu bon la itam dafa mel ne ay reen yoo xam ni des ko war a sempe bañ koo suuxat muy màggaale ak moom euh, bu ko defee nag nit ki bu fekkee am na jikko ju baax mooy tax kon mu mën a jëriñ société mën a jëriñ waa jamonoom mën a jëriñ itam ay mbokkam waaye bu fekkee jikko ju baax ni wut ci moom itam boobaa dafay mën a lor waxuma la lor boppam waaye ñi nga xam ne ay mbokkam lay njëkk a lor waaye dafay lor itam ab société am ndax day jiyé ci li nga xam da fay yàq ab société way kat ba di wax na fa hada allazi in aasha la yu'tana bihi wa in maata la tabki alayhi aqaribu xam na koo xam amul société bi ben njariñ nga xam buy dund neena du jariñ kenn waye bu fi jógee itam motax da jaral kenn di bëndi bët di joy ndax dafa amul njariñ waye bu ne jikko ju baax na kon mooy alxuluqul mahmud wala ñu ne mooy alxuluqul hasan wala ñene ñi di ko tuddee makaarimu akhlaq lu mu ci mëna doon ay turam bari na yonent bi waxoon na alayhi salaatu wasalaam nga xam ne damay ñëw ngir ngir defaraat jikko yi kon dafa mel ni lépp nit mooy jikko bu baaxee rek léppam dafay baax waaye bu ne jikko ju bon nag al asmatul xuluqiya mooy crise boo xam ne dafa engagé jikko yi al asmatul xuluqiya bi maanaam mooy fasaadul xuluq mooy koo xam ne jikkoom dafa yàqu nga xam ne lépp lu def sariya du ko rafetlu am xel du ko rafetlu te loolu itam ñaare dafay lor bu amee dafay lor ay mbokkam dafay lor ab société naka noonu itam képp koo xam ne jege na ko sax di ànd ak moom mën na ko yóbbaale ci jikko ju bon joojee moo tax jikko ju bon baaxut kon loolu ci gàttal mënees na koo taxarife ci diggante leen mooy jikko ju bon ak bu nee jikko ju baax ak lan mooy jikko ju bon léeg-léeg nag dañuy wax na al asmatul xuliqiya ndax xam nga ni crise ñaari bu duggee ci alal mooy koom-koom boo xam dafa dellu ginnaaw léeg ñu ne crise ci wàllu politique bu fekkee ni ñuy politiquee baaxut waaye léeg-léeg itam ñu ne kiris ci wàllu jikko kon buñ ko waxee moo de ak yàquteem waaye kiris yooyu lépp lu ci am rek muy al asmatul ijtimaaiya muy al asma al siyaasiya al asma al lu ci am rek boo xoolee mi ngi juddoo ci al asmatul xuluqiya kon jikko lañ war a njëkk yitte woo nga xam ne bu baaxee rek boo bàyyee ci def yëpp dafay baax waaye bu nee al asmatul xuluqiya kiris yi liñ ci jublu mooy yàqute jikko kon manes naa yemandi foofu ci xam léegi suñu am di Moustapha Euh, jërëjëf Serigne naa ci xamle gi nga xamle lan mooy jikko ju baax waaye tamit xamle gi nga xamle safaan ba mooy jikko ju ñaaw muy loo xam ni ay màndarga la yuy feeñ ci nit ki bu fekkee ne ndaw la ñoo xam ni kat kii yor na jikko yoo xam ne war nañ koy joyanti donte yàlla mooy maye jikko ju baax di ko fàggul ñenn ñi am jikko yoo xam ne tamit nit ki moo koy sabablu te léeg-léeg comme ni ko waxee ay àndandoo di ko waral euh, nu ñëw suñu ñaareelu laaj. moo di ban jeexit la jikko di def ci ab société ci coppiteem moom jikko ban jeexit la mën a soppee ab société ñu nekkoon ci dund demaat ci geneen dund gu wute gañ njëkkoon a nekk jërëjëf sëñ Abdul Moustapha laaj bi am na solo mooy jikko jan jeexit la mën def ci dunduk nit ñi dunduk doomu aadama yi dañuy wax ne de saadatul mar'i dunyan wa uxran fi salaahi xuluqihi texeg nit ki àdduna ak àllaaxira mi ngi ci baaxu jikkoom ndax ci lay mën a jagale àddinaam ci lay mën a jagale itam ëllëgam waaye safaan bi itam saqawatul insaan fi fasaadi xuluqihi texee dig doomu aadama li nga xam da koy jaral texee di ci àddina te mooy dund gu baaxut gu baaxut goo xam ne dara du ci jëkk ak itam ëllëg mu mujj fu bon la ko mën a sabab itam mooy yàquteg jikko loola tax mboolem ñi nga xam ne dañoo ñëwoon ngir defar seen jamono dañuy yittewoo mooy defar jëmmi nit ñi ci boppam da ko dale ci yonente yi alayhim asalaam huwa alladi baata fi lumiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma nga xam ne foofu la mu jiital mission bi tax yàlla yónni leen dafa indi tasgiya loolu mooy lan mooy taskiyatu nafs te nag nafsi mooy defar jikko yi ginnaaw bi nag ci la ñeneen ñëwee rawatina bu fekkee eh, ahlu tasawuf la ñoom eh, di ko tuddee ak tarbiya wala taskiyatu ruux lu mu ci mën a doon kon nga xam ne rek bépp société boo xam ni ña fa nekk dañoo am dañoo dañuy dañoo am jikko ju rafet boobaa société ba dafay jëm kanam ci lan mooy ñëpp dañuy mën a jëflante jëflante bu rafet bu baax ci anam nga ko sariya digle naka noonu itam la nga xam ni mooy seenu dundiin ci seenu askan yitam lépp dañuy sàmmwanteeg war-war yi nga xam ne moo dox seen diggante ndax diggante nit wu nekk dafa am ay xoqooq yoo xam ne yàlla waral na ko bu ko defee kenn ku nekk nag bu fekkee am na jikko ju rafet mooy tax dur duruwaay yi war digganteem ak moroomam moo mën koo sàmm eh, waaye bu fekkee jikko ju baaxul nag dafa am dafa tasaaroo ci ab société boobaa kenn du sàmm àqi moroomam boobaa la muy waral mooy kon àq yi dañuy sànku la muy waral itam naka noonu mooy jëflante bu ñaaw te jëflante bu ñaaw itam fu mu am moo tax da ngay gis bu dee ci jamono ji niñ ko mën a misaalee nga xam ne boo duggee ci marché bi gis nga naxante gi ni mu baree nga xam ni kenn ko nekk day nax moroomam naa fexe ba lekk la mu yor tey gis itam naka noonu ay worante dafay bari lool ci diggante aw Eh, nga xam ne kenn ko nekk day dox doxiinu nu ma mën a fexe ba am rek naa ko def boo ko defee boobaa nangu ak jàmbur eh, ci anam goo xam ne teguwul ci yoon dafay yomb lool naka noonu itam ab warante naka noonu ab rayante te loolu itam li muy indi ab rayanteeg liggéey liggéeyanteeg yu ne demee li muy indi maanaam mooy insécurité te mooy kenn du am ak kóolute ci boppam kenn ko nekk waxtu bu nekk mu ngi jàpp ne loraange mën na koo dal wala mën naa dal ak njabootam wala àddina mën naa yàqu te yooyu yëpp nag bu fekkee nit ki mi ngi ci rek li ñuy tuddee sax saxatul istiqraar boobaa loolu daanaka ci saqa wala bokk ci ak texee di la bokk waaye nit ki lay tax mu mën a dund fil hudu wa istiqraar mooy day fekk ñi nga xam ne ñoom lay dundal kenn ko nekk la nga xam ne moo war digganteem ak moom mi ngi koy jéem a sàmm di ko def waaye du am lenn loo xam dana ko ragal yi tam bu ko defee loolu mooy tax mu mën a am ak dal mooy tax mën a am loo tax niñ ko waxee itam da ngay fekk ñi nga xam ni ñooy ñëw ngir fas yéenee defar seen jamono dañ naa bu buñ bëggee ëllëg baax dañuy tàmbali tey dañ koy tàmbali tey mooy nañu fexe ba yar ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooy magi ëllëg boo ko defee buñ njëkkee ci ñoom defar leen mooy tax seen ëllëg da ngay mën a xam nan lay demee ndax seen ëllëg ba naree baax nara tegu ci aw yoon nara mooy day fexe ñi nga xam ni day fekk ñi nga xam ne ñoo nar a nekk dirigeant yi nekk nit ñu jub ñu baax ñu rafet jikko waaye mustaqbal li nga xam ne moo nekk sunu kanam itam manees na ko atti ci bu fekkee dañoo xool ndaw yi tey bu fekkee dañoo nekk ñu ñu ñu ñu ñu yàqu ñoo xam ne seen i jikko baaxut boobaa itam xel day dala di ci ne ëllëg ki ci ne ëllëgkat ginnaaw ñii ñoo war a nekk dirigeant yi ñoo war a nekk njiit yi ñoo war a nekk kilifa yi kon mën nga yëg ci sa bopp ne ëllëgu jamono kon du baax wala boog ëllëg du baax ndax lan ndax ñii nga xam ne ñoo ko war a ñoo ko war a saytu ñoom ñoo war a nekk kilifa yi seen i jikko baaxut kon lu ci nekk rek des na ko mën a natt ci jikko ju baax ak jikko ju baaxut kon bu ko defee ba tey xay na laaj bi des na mën a yemani foofu incha allah. waaye liñ ci yokk tuuti bu dee loolu itam mën naa jeexital bu fekkee dañooy jàngataal leen ci taarix yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu fekkoon arab yi wala sax bilaadul arab yëpp ak ginnaaw bi lislaam duggee ba jeexeetal ñi nga xamee ne noonu la soppi dund ga nga xam daf koy jëlee ci ak anam indiwaat ko ci anam muy ñaari anam yoo xam ne wuutee nañu lool ndax boobu fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon jamono manis na ko misaal ci euh, xitaab boobu nga xam ne Jaafar ibn Abi Talib defoon na ko ci kanamu am an najaasi ba mu leen woowee di leen laaj ki ñu topp kan la ak jën diine la indi di leen laaj waaye bokk na ci la mu wax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ngir jëleen nit ñi ci ak texe di yóbbu leen ci ak texe di ci jamono joo xam ne yóbbu leen ci ak texe ci jamono joo xam ne fekk na dañuy rey bakkan ci lenn lu dul àq nga xam ne booba insécurité dafa amoon bari lu ñuy naan sàngara te gis nga naan sàngara itam effet bi muy def ci doomu adama nga xam day dem ba day yàq am xelam te lislaam dafa ñëw itam ngir ngir sàmm xel yi ngir defar ngir defar xel naka noonu itam njaalo gis nga njaalo itam ni mën a indi te société ba yàq njaalo dafay bari te gis nga njaalo itam li nga xam ne mën na koo def ci askan wu tasaaroo ñoo xam ne duñu am duñu am bàyyi duñu am ku leen toppatoo bu ko defee ñooñu dañuy mujj dem ba mën nañoo mën nañoo yàqu nga xam li ñuy tuddee tasarrut la ñuy mujj dem mujj di taxawaalu amuñ fenn fu ñu jëm amul kenn ku leen sàmm di mën a indi société boo xam dafa yàqu njaaru dafay bari te njaaru yitam boo amee naka noonu loolu lay indi ñoo xam ne ay mutacarridoon lañu la ñuy doon seeni jikko yàqu dañu am kenn ku leen toppatoo ma ni ko itam bokk na lañ daa def dañ daa dog ak mbokk dañ daa rayante nga xam ne diggante jéeri arab yi e, ñenn dañ leen rayal seeni mbokk ñu topp ko nga xam ne ay ati at mën nañ ci di xeex ci diggante ay doomi ndey ak ay doomi bàjjen wala ay diggante doomi bàyyi tax ni amee woon ci xarbul basuus nga xam ne xare bu yàgg la te diggante ay rek la nga xam loolu moo leen sonaloon naka noonu itam ak noonoo goo xam dafa doxoon ci diggante nit ñi bi yonente te sallallahu alayhi wa sallam fekkee jamono ji mel noonu nag nga xam ne kon dafa soxla indiwaat loo xam dafay sensé dundug nit ñi nga jël ba lislaam ñëwee ñu jàngal leen koy lislaam jàngal leen naka lan war a toppee yàlla jàngal leen naka lan lan war a jëflantee nga gis jamono bi ñuy dund léegi ni mu gënee ñi ci nekk ñi ci nekk nekk nit ñu baax nekk ay tànneef seen jëflante rafet nga gis ni mu wuuteeg ba lislaam laataana ñëw ak dund ga nga xam dañ ko doon dund loolu mënees na ko cee joxe misaal ci loolu ñu doon wax léegi Euh, jërëjëf sëriñ naa ci leeral bi am solo yi mooy ndekkete jikko moo xam bu baax ba la wala bu bon ba mën naa soppi ab societé ci ak dundin bu dee bu baax ba mën naa fekk société bu bon mu ñëw jëlee ko ca mbonte googu ñu nekk indi ko ci baax nga indi ci misaal ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ak ba Jaafar ibn Abi Taalib doon wàqanteeg najaas yi ci dundin wi nga xam ne noonu la waa màkk doon dundee yonente bi di leen woo ci geneen dundin waaye tamit ndekkete jikko ju bon bu fekkee ab société bu baax mën na koo yàq jële ko ca mbaax googee indi ko ci ak mbonte mu mel ni léeg ngay dégg ay reyante ay worante ci wàllum jëflante doomu aadama moo xam ci économique bi la moo xam ci politique bi la ak ci yeneen ak yeneen ndekkete kon jikko ji nga xam ni moom lañ taamu ba tax sax yàlla di yónni yonent ba sunu yonent wax ni dama ñëw ngir mottali jikko yu baax yi innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq ndekete kon jikko yu baax yooyu nga xam ni moom lañ soxla ci dundu nit ki loolu moo taxoon yonent yi ñëw fii xam naa dañuy njëkkante waxtu yi ñëwaat suñu beneen laaj mooy euh, ki nga xam ni moo tax daje bi am muy Cheikhul Xadim seriñ Tuuba moom jamono ji muy ñëw ci kaw suuf environnement bi mu fekk dundin woowu jikko yi ci ak yàqute naka la ko sëriñ bi fekkee woon maanaam sëriñ Tuuba naka la fekkee woon jikko yi ci ay jamono yi nga xam ni moo ngi ci kaw suuf ñëw fii di dund ak société bi nga xam ne ñoom am na jikko yu ñu leen xamee maanaam sëriñ Tuuba ban ban ban nekkin la leen fekkee woon jërëjëf sëriñ Abdul Moustapha ka muy laaj bu am solo bi sëriñ Touba di ñëw jamono naka la fekkee environnement bi demee ni ak naka la fekkee jikko yi yàqu nañ la situation bi demee woon loolu mooy ni nga xam ni la jamono di amee rek saa bu demee ba aaji sunu borom yebal koo xam dafa ñëw ngir defar jamonoom ni ma ko misaale léegi ci dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa gis nga bi muy ñëw dafa fekk société bi laaj ko soxla ko ndax jikko yu yàq yu baree bari moo war a dindi jikko yooyu xamal nit ñi lan mooy yoon ngir teg leen ja waaye defar seeni jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee fekk na jamono yàqu-yàqu bari lool mu taxaw ci loo xam ne moo koy jagal la nga xam ne moo joyoon mu fexe ba joyanti ko loolu tax mu indi woon ar risala al alamiya waaye bi mu demee ba nga xam ne mission jeex na itam yonente bi alayhi salaam jógee fi taxul nag maanaam liggéey ba dakk teewal ñi nga xam ne ñoo ay saxaabaam mu yar leen ci yoon woowu ñoom dañoo continuer liggéey boobu yor ko yëkkati ko di defar aw nit di tasaare xam-xam dan mooy xam-xami sariya ak naka la ko nit ñi war a xamee ba xam ne lii mooy yoon lii moo dul yoon li nga xam ne ay aada ay aada la woon te baaxut ñu fexe ba bàyyi ko ci li nga xam ne sariya indi na ko waaye li nga xam dañ ko doon dañ dañ koo jàppe loo rafet te bokkut ak lu rafet tam loolu ñu fexe ba xamal leen lan mooy lu rafet ñu jàpp ko bàyyi la nga xam lu ñaaw la nga xamee ne saxaaba yi liggéey nañ ci waar liggéey wu yaatu dem ba jóge fi ni ñu tuddee attaabiroon a ñëw ñoom itam di gëstu ci wàllu xam ak la nga xam ne itam mooy njàngaleem sariya di ko wéyal di continuer biñ demee ba nekkati nit ñu tuddee al doon ñëw mooy ñi nga xam ñu fekk la ñu baax ñu yeesaloon am ñoo xam ne dañ fay jaar dañ fay jaar rappal ko ñu fexee jéem a yeesalaat la nga xam ne moo fi nekkoon loolu mooy indi mu jaddi doon yi ndax jamono ju nekk itam dafay am ñoo xam ne seen yitte mooy di di yàq ak di jaxase boo ko defee loolu nag day dem ba jamono dafay ko boo ko defee ay yàqu-yàqu bariwaat day aaji nag sunu borom yebal koo xam ne mooy ñëw ngir mën a sofe waa jamono waa jamono ngir mën leen a xettali Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala noonu la ñëwee fekk jikko yu yàqu yu bari lool eh, ngir misaal ci tuuti rek des na delluwaat ci na nga xam ne Serigne Moussa Ka bind na ko dañ koy faral di jàng lu bari ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu ci doomi seex yi wóor yi faf nasraanu ñiy jaxasoo kàngam yi ak nasaraan yi ñii di fiqaadi ñee di ànd ak naar yi nga xam ne booba ñi nga xam ne ñooy doomi soxna waroon a nekk ci daara yi di jàngale waroon a jubbanti nit ñi nekk nit ñu baax ñoom ci seen bopp ñoo far def ay kaana ñi nga xam ne itam ñoo nekk ay wóor ñi nga xam ne wóor yi àdduna lañu àdduna rek ñor leen ñoom itam mel ne far dañuy jaamu nasaraan nga xam ne boobu nga xam ne booba ñi fi nekkoon euh, maanaam colonial bi ñoom ñoo yëlifoon yëpp ñoo yëlifoon fépp ñoo seet fu leen neex itam ñu tànn kenn ci boor yi teg ko fa bu ko defee mu ñoom lay nekkal loolu nag demee woon noo xam ne kon képp koo xam ne dafa ñëw di jàngale lislaam wala koo xam ni teem mooy defar loolu dañuy jàpp ne dañ leen di yàqal moo tax ñoom boobaa dañuy fexe ba dañuy dañuy dañuy fexe ba faagaagal la nga xam ne ñi nga xam ne ñooy doomi soxna waroon a jàngi ñoom la seen jikko gën a yàqu ñi nga xam ne ñi nga góor la bay jàngale itam ko noonu lañuy jàngale dafay mel ni amuñ ca amuñ amuñ ca la ñu bëgg ndax eh, ni mu koy waxee na yi doomi soxna dal di sampe daara te donc yeeg jigéen ñi mel ni saara gisa waaye njàngale moo xam ni ñëpp dañuy jaxasoo nga xam ne yow lijjantiwoo kenn nga xam ne boobu jàng mën naa am waaye nag jëmmi yar ci boppam li ñuy tuddee daara tarbiya boobu amutoon sëriñ si ànd ak buur yi faf di daane ñële di tuux di foon ñëley doxaani nga xam ne boobu sëriñ si nga xam ne ñoom lañ jàppe ay sëriñ ñoo nekk doomi soxna dañoo far ànd ak buur yi bu ko defee seen yitte yëpp nag nekk ay dóor rek ñoom lañ fexe ba dund nga xam ne noonu la amee ci jamono Eh, noonu la ko toppee góor ñaa jigéen ñi jaxasoo di caaxaan làmp yu gor sabar yi yëpp jaaxaan kenn amatul xaslun li wacillaahi kaa ngi ko fóori faf tijaanillaahi ñi ñi nga xam ne ñoo nekkoon niti alxuraan nekk ay kaang nekk ay fóori di boroomi xam-xam ñeen ñëpp dañoo kenn ku nekk da cee far nekk jaanin mooy ab tooñkat waaye nekk laahi itam mu bàyyi ko ci allahu maanaam nekk nitu caaxaan nga xam ne ba dee sowu jant moom mooy barab yi ñuy dund man nga ne lislaam amati fu woon ba dafa génn gàddaay ngir amatul kenn ko koy saytu wala ku ko fiy dundal lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay dem sow bu jant fépp mel ni làmbaay kenn amatul xastun di wacillaahi nga ko waxee Seex ba dal di ñaan ci barkib jiili ne yàlla maay safiha kulli jiili maay xaadimu rasuli fi dunaani fi fi sudaani maay rammu xarnu bi ani niiraani nga xam ne kon foofu dafa leeral rek maanaam bi nga xamee ni ci la Serigne Touba di ñëwee ni mu fekkoon jamono ak ni mu yàqoo woon loolu itam dang ko fekk ba tey ci ben téré bo xam Cheikh mohammed Cheikh mohammed Mahmoud ñing moko ko euh tuddé ko annahjul qawim mi ngi naa kaana yamla'u sénégalu kulluhu allahu wa laibu wal xuraafaat fa jaa cheikhul xadim wa daqa annaasa ila allahi bi ixlaasi al ibadati lahu waxdahu wa tarki al bidaai wal xuraafaat wa taxalluqi bi makaarimi al axlaaq wal iraadi an wallahi lawlaahu maata nnaasu kulluhum wa ala tariqati iblisa allazi samaja nee na sëriñ bi bi muy ñëw daa fekk senegal li ko fees mooy am po ak i caaxaan ak ay neen yoo xam nit ñi dañ koo topp sëriñ Tuubaa ñëw nag def yitteem woo nit ñi jëme leen ci jaamu yàlla ak di ko sellal jaamu yàlla rek te bañ koo bokkaale ak kenn bàyyi lépp loo xam ne xeeti caaxaan la ak i biddaa mooy li nga xam dañ koo sus ci diine ji te bokku ci di woo nit ñi itam ci ñi jikkoo rafet waaye dëddu li nga xam ni eh, meññitum àdduna rek la te dafay jeex waaye jéem a dëgmal la nga xam ne du jeex ba mukk ndax waa ma inda allahi xayrun wa abqa loo tax ma wane ñi ngir ñi jublu sunu borom rek ñu jox ko seen lépp loo tax ñuy wax ne bu dul woon ak sëriñ bi ñu baree bari danañ dee ci yoonu iblis ndax boobu ñëpp iblis jàpp na leen ci yoon woowu nag ci la ci anam googu ci la sëriñ bi ñëwee nga gis bi ñëwee ni mu jaa ni mu jaayanteeg yàlla ak li nga xam ne moom la fas yéene woon na nazaafatuhu kulli min allahwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu wax ne li nga xam ne mooy sama yitte mooy fas yéene leeral yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéen Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu algarra wa inni ahmadu eh, nga xam ne kon li nekkoon yitteem mooy rek fexe ba la nga xam ne ca la jamono jaaroon ba jàkk mu indiwaat loole ndax eh, dafa am wax ju siiw ñi ñuy faral di askanale al imam Malik mooy laa yasluhu axiru hadihi al umma illa bima saluha bihi awaluhu li mujj bu fekkee bëgg nga bu baax da ngay sukkandiku ca la njëkk fan la jaar ba baax da njëkk fam jaar ba baax boo mujj boo bëggee li mujj baax yi tam na ko noonu foofa rek ngay jaar loo tax sëriñ bi bi mu ñëwee nag gis ni yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw dafa ñëwoon ngir defar jamono ngir defar nit ñi kon foofu la mën a jaar yeesalaat ko ngir mën caa jaaral nit ñi te loolu mooy tax ñu baax mooy tax itam seen jamono mën a defar لو تاخ داغي جيس بيم نيوي لاغا خام داف كو دايلنتك يالا واي دايلنتك يونتبي صلى الله عليه وسلم ليم دايلنتك يالا فاسانتك موم غير فاسينكو ليغي داغي جيس مكاي بيرال راحت ربي على العباده بسنه المختار خير ساده داغي داين دايلنتك سما بروم كي ديكو جام واي جامو غو سيل غو خام دا فاي تيغو سي جانغلام يونتبي صلى الله عليه وسلم له على له علي العهد في تحليل ما حلل مع تحريم ما qad harrama li soo ma ne deelente nag yàlla itam ci fas yéene daganal jaar ci lépp loo xam daganal na ko waaye bàyyi déga si lépp loo xam ne daf ko araamal aahadtuhu aydan ala tarki ibtidaa mustahirin li wajhihi qasda ittibaa deelente nag sunu borom naka noonu itam fas yéene bàyyi lépp loo xam ne dañu ko sos ci diine ji te bokku ci te li ma jiblu itam mooy topp yoon wi nga xam ni مم لن يردل ظهر لي أن اعتصاما بالكتاب وبحديث المصطفى هو الصواب كن فسنا لرنا ناني كمان نلغا خاني مو يونوا موي نوي جي تيرب القران اك جانغلم يونت بي صلى الله عليه وسلم سيرن بكم كوم دافا واخني مانام لي موي سما يون ليغا خاني جار كيب كو خاني توبنا مي تام سي يون وي لا كو جارلي هذه طريقتي وفيها الموت طرائق القوم الذين جمعوا ولا طرائق القوم الذين اجمعوا yoonu nit ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo daje ci lu baax nee na lii mooy sama yoon te képp koo xam ni topp na ma itam nee na yoon woowu laay fexe ba mu séen ko kon sëriñ bi gis nga fi mu fekk jamono garaaw na lool ndax booba wóori àddina yi ñi ngi fi kolonial bi itam ñi ngi fi te ñoom booba li ñu bëggoon mooy nañ fexe ba njëkk ci nit ñi def ci ñoom seeni jikko def ci ñoom seen culture loolu looloo tax du leen arrangé mukk nag koo xam ne dafay ñëw di jël ndaw ñi fexe di def ci ñoom loo xam ni l'islam la di def ci ñom lo xamni jangalem l'islam la ndax loolu arrangé wolen dañuy japp ne kon boba da ngay jóg manam ngir tahaddi len loo ta bokku na ci sabab yi nga xamni man maye na sëriñ bi ba yobbu ko boo xoolee yu bëree bëri sabab da fay da fay dugg ci biir ndax serigne bi kum xass ba ñëk ci mom mom keneen dootu ko mëna jariño wala keneen dootu mëna def ci mom lo xamni man nako yaq koo tax bi serigne bi ñëwé ngir defar jamanam nak kon fay jël yoon wa nga xamni fa la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam jaaroon moo fas yéene faa jaar ci théorie waaye itam naka noonu di ko appliquer maanaam ci pratique yi itam euh, loo tax ni ko sëñ Abdul Ahad daa waxee nee na sëriñ bi moom sosut waaye dafa sof ndax bi mu ñëwee dafa wax ne na ngeen ma topp ma jaar ak yéen yoon wa nga xam ne fa la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ak ci saxaabaam te loolu mooy woy won yoon mooy tariqul bay'a maanaam jaayante fas yéenee nekk ak moom nekk ci ay waawam ak i digleen di wattandiku lépp loo xam ne da la koy tere sëriñ bi sax da ngay gis itam jamono jooju moom itam ni koy misaale ci jamono jooju am na ci loo xam sëriñ bi mu ngi koy junj ci xasida googu mu tuddee ilhamu salaam wax naa wa taawaruhum bi sina wa sariqa wa xayri zeyni min fiaalil fasaxa boobu dafa tudd nasaani ak majoos yi waaw mooy ñi nga xam ne xëy na gëm nañ yàlla waaye nag dañuy ñett ñett suñu borom di ko bokkaale ak ñi nga xam ne far yàlla lañ gëmut da da ngay gis niñ jeexatalee ci seen waa jamono ba nit ñi sax dañ leen a roy topp leen def leen comme ay yàlla ragal leen lool nga xam dañ leen topp ci ñu nekk mooy wàllu njaal ak càcc nga xam ne yëpp nit ñi dañ cee nekkoon rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ fa doon tudd leen ay buur maanaam teg leen ci ay barab ñu nekk seen i jaraaf naa wataawaxuufum bisina wa sariqa wa xayri zeyni min fiaalil fasaqa ak lu dul ñaar yooyu sax maanaam ci li nga xam ne ay jëfe kàccor la jëfe caay-caay lépp nit ñi dañ leen ciy roy àgg ci naa wa baaduhum qad nasiya rasula li xawfihim wa nasiya ñenn ci ñoom àgg nañ dañoo ragal sax colonial bi nga xam ne dañoo fàtte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo fàtte yàlla ci la mu leen sant nekkoon ti ngir lan ngir ragal rek ñi nga xam ne ñooy nasaraan si wa jarruhum iblisu lil isyaani wala tajarrui walil xusraani te ne xam ne ni ñoo ñoom ñoom moom rawdu sayaatina la ñu nekk te mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon tubaab yi nasaraan si fi ñëwoon fas yéene ñot di nit ñi ngir def ci ñoom seen i culture naaw dañoo jaar ci yoonu iblis nag moo tax sëriñ bi ni mu koy waxee woon na iblis daf leen a diri jëmali leen ci ak ma yalla jëmali leen ci ak déggéer la te deugar bop bopp leen ci ak pertangé ta loolu ñu nekkon nit ñi itam nako non roy eh, ragal leen ba di leen ci roy kon nit ñi buñ leen da fay mujj melni ko ñoom itam dañoo nekk ci yoonu saytane kon fay dëgëral la way kon bu waxoon wallahi law la huma tanasu kulluhum ala tariqati iblis iblis allati samaja. Budul bu nak ninye danye nit ñi dañuy texee ndax ñoom ñepp dañuy faatu ci yoonu iblis mi nga xamni dafa bew nga xamni dafa fetterlu Euh, jërëjëf Serigne naa ci leeral yu am solo yi ci laaj boobu nga xam ne laajoon nañ la ko mooy sëriñ bi bi mu ñëwee ci kaw suuf nu mu fekkee suuf si nu mu fekkee nit ñi ci wàllu jikko nga xam ne ni fekkoon na fi ay doomi soxna daan nañ jàng waaye njàng ma ci njàng rek la yam daawuñ jëfe nga leeral ni fekkoon na fi tamit ay ceddo ceddo yi moom daanaka mbirum àddina rek a leen ñor waaye fekkoon na fi ay niti kese daanaka ñoom ñëpp ñu bokk génn dund gi mooy jikko yi yàqu na ci ñoom ba noppi. Euh, ndax doomi soxna yi daanak am po lañ gënoon a jéng sax ci jëfe la nga xam ne moom lañ moom lañ jàng waaw ndax daan nañu wax ne ñoom mbokkoon na ci niñ daan euh, def ñoom doomi soxna yi ku ci mokkal alquran da ngay ay kaam yu bari wër la ñuy fëttante ci alquran léeg-léeg bu nit ki juumee ñu koy taaxuraan yi naan ko rëppeelu nga del bindi gestu baa nga dëkkee na far euh, nga xam ni ay wayantoog am foo lañ ko jàppe woon comme ni nga ko indee ci waxe Sëñ Musaa Ka jooju mooy yi doomi soxna daal di sampi daara te dong yaay jigéen ñi mel ni saara sirée mu ànd ak saara yënd caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo waaw ah, góor ñi jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb yu gos ba yëpp jaaxaan kenn amatul xas doole wacci laahi kaanaki foori faf di jaani laahi jaan tooñkat la fookat te loolu dong lañ fi nekk woon ndax maa ngi gis ci yeneen i waayam seex muy wax nan dangaa fekk yéefar yeeg sëriñ sépp bokk yam di jaamuy bidaa yaa tax ñu sellal sëriñ tuuba dangaa fekk ay dongoog sëriñ bokk genn kër di mooy yàlla yaa ber daara jaajëf sëriñ tuuba dangaa fekk aw góor ak jigéen bokk lenn ndën nga ber dab yi wut sa yéere jëf sëriñ tuuba xam naa dañuy profité dañuy profité ñëw ci e, laaj bi si topp mooy ndem gis nañ ni sëriñ bi Cheikhul Khadim e, bi mu ñëwee fekkee ni nii jamono kon ndem moo wuutu yonante bi ci kaw suuf nekk wuutaa konam nekkuutaa kon yonent bi lan moo nekkoon yitteem ci soppi société boobu nga xam ni nekk nañ ci ay jikko yoo xam ni yu suufe lañu sëriñ bi naka naka na taxawee nekk wutaakoon yonante bi ngir ne yonante bi ñëwee woon jamono fekk waa Màkka ci jikko yu bon yi sëriñ bi ñëw ci réew mi réew nit ñu ñuul ñii fekk jikko yu yàq lool mu naqaree lijjanti naka la leen soppee moom Cheikh Al Khadim jërëjëf sëñ Amdine Moustapha Ka sëriñ bi ñëwee fekk jikko yi yàqu fekk itam jamono tëddee noonu naka la fexe ba joyante li nga xam ne moo joyoon waaye naka la fexe ba defar li nga xam ne moo yàqu woon loolu sëriñ Tuubaa dafa nekk mujaddid ni ma ko waxee léegi bu ne mujaddid nag mooy koo xam ne dafa ñëw ngir yeesal yoon wa nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ndax dem na ba mel ni lu ràpp léegi mu nag ñu yeesalaat ko ndax da ngay gis Serigne Touba radiyallahu taala anhu léeg-léeg buy misaal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ak ni ko nit ñi sàgganee mel ne dañ koo naa wal mu koy niroo léegi rëdd kër goo xam dafa dem ba effacé wu aajo aaji ñu rëddaat ko kaada turaaka rasmi daarin qad afa fii de zamani li mudiyi may nit ñi baax ñu sell ñi nga xam ne ñoo daa jegal bu ñu demee ba jige fi dafa am ñu ñëwaat di yàq ak di raafal la nga xam ne mooy yoon wu baax ba nit ñi dootuñ ko mën a xàmmee sëriñ bi nag ñëw ngir defar li nga xam ne moo nekkoon liggéeyam kon mooy yare yoonu yar nga jër ngir ngir ngir ngir defar nit ñi te loolu tam def cee am digalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ba mu gisee moom ni mu ko digal mooy rabbi asxaabaka bil himma na nga yar ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci yitte ju kawe ndax booba sëriñ bi fekk na yitte yi dafa suufe lool ba war a yëkkati yitte yi ngir mu jëm kaw nga xam ne nit ñi dañuy mën a teg dañuy mën a teg seen bët fu kawe waaye am dogu gu dëgër goo xam ne itam dana leen mën a may ñu am dogu gu mel ni eh, dogu gu tol ni la nga xam ni moo di ak kaw ak kaw ñu jëm ko ñu jëm ko sàkku wala boog la nga xam ni moo leen di may la bëgg ñu fexé ba am dogu gu tol lah. ndax dafa fekk itam dogu yi dafa xawa pass pas-pas yi dañu xawa yolam ta pas pass bu yolam itam bu fekke nit ki dafa and ak mom do meuna yotu dara ba jott ja ni serigne Moussa ga di waxna innal fawaida ala al aqaid ala al aqaidi ku ñëw fasoo wëñ nga mboroos nga di ndax njëriñ yëpp itam ñi ngi ci pas-pas yi tay pas-pas yi yolam na lool serigne bi ñew ngir degeeralat pas-pas yoyu waaye fekk na naka noonu itam seenu dogu dafa dafa des maanaam dafa yolom naka noonu kon sëriñ ba tey itam maanaam war a dëgëralaat seen i pas-pas yëkkati seen i seen xol jëm kaw ndax dafa am ñoo xam ne ñu wax ne ak ràpp moom ci xoli nit ñi lay nekk boo ko defee jëmmi xol yi ci boppam ñooy ràpp ñoom ñoo soxla woo nga yeesal ko lan ko ko yeesale mooy nga dundal ko ci ëngëm yàlla yëkkati yittee mu jëm kaw ci yoon wii la sëriñ bi jaar ngir fas yéenee leer la sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lim ko digal mooy mu yare waaye itam firi woon ne dafa war a yar dafa war a yem ci ab yar kees waaye itam daf cee boole ak jàngale ndax ni nga ko waxee bi bi ñëw fekk na am jàng am na daara yi ñu ngi taxaw nit ñi ñu ngi jàng ji man alquran lool nekk ay kàng waaye gis nga niñ ko daa fawe fekk na am njàng am na waaye am njàng yitam bu fekkee nit ki eh, jëriñoowu ko wala bu fekkee nit ki jëfewu ko boobaa du ko jariñ dara waaye man ay théories yi kese lay doon da nga xam dañuy jàng xam li nekk ci téere yi waaye nag seeni jikko moo gën a yàqu lu yàqu kon dañoo jàng ba noppi la ñuy jàng dunduñ ko sëriñ bi nag ñëw bi mu sampee ay daaree alquran samp ay daaree xam-xam samp itam li ñu tuddee daaree tërbiya moom moo ko njëkk indi Eh, nga xam da daf daa yar nit ñi ngir li nga xam ne moom la ñuy jàng itam ñu mën di ko ñu di ko dund mu nekk ci ñoom eh, looloo tax itam bu dee xam-xam gis nga ni nga xamee noonu la yeesalaate xeeti xam-xam yi nga xam ni nit ñu baax ña moom lañ taalifaloon seeni nit ngir di leen ci jàngal ngir di leen ko jàngal ndax bu ñu jàngee ci la ñuy mën a xam sunna ci la ñuy mën a xam sariha xam li mu digle xam li mu tere bu ko defee ñu mën a def ndigal ya bàyyi tere ya kon sëriñ bi téere yi itam da cee da cee da cee taalif lu bari bari ngir lan ngir yoonu xam-xam moo tax ni mu xate woon waaye gis nga lim daa xat-xat teewul warlul na boppam loo xam ne bu ko bindee bu ko nit ñi jàngee daan ci mën a xamee seen diine te loolu sax dafa bokk ci ponk yi nga xam ne moom la lal tay yoonu murit ndax saa boo gisee ñaari mooy leeral melokaani murid saadix da ngay gis daf cee boole xam-xam am na boo xam ne ci juróom-ñaari melokaan la ko tënk bi muy wax ne li yantabih kullu muridin salik ramal wusul lil badi an malik ala umurin fi'luha burur wa tarkuha min al hawa gurur wa hiya sab'atun bila siyada wa man yola fi ma yaxu siyada أولها الخدمة للشيخ النصيح بكين يتلب دفو خوني ثالثها تعلم الفروض المتقيدة بالتفريد bu ñetteel bi nag mooy jàng xam-xam yi nga xam ni mooy faratay jëmm yi nga xam ne ko ci nekk yaa ko mën a defal sa bopp loolu jàng ko dafa bokk ci yi nga xam ne ci la sëriñ bi fondé yoon wi kon xam-xam daf koo leeralaat ba pare itam boo nit ñëpp na ngir ñu jàng yaa ayyuhal juhaalu fal taallamu dal ayaani kay ma taslamu yéen ñi réer yéen ñi nga xam ne xamu leen rek waaye na ngeen jàngi li mënta ñàkk ngeen xam ko ci seen faratay jëmm bu fekkee ba ngeen a mucc looloo tax xam-xam yi ëpp solo muy tawxiid ak fiq ak tasawuf gis gis nga sëriñ bi ni mu ko doon jàngale waaye gis nga nim ci nim ni mu ci doon taalife itam euh, naka noonu itam indi li ñu am amoon amoon li ñuy tuddee almanhaju tarbawi sëriñ bi dafa amoon système éducatif boo xam ni moom la jëloon ngir di ci yar aw nitam am na système éducatif boo xam ni moom la yoroon moom la tegoon di ci yar aw nitam euh, boo ko defee loolu nag sëriñ bi ni mu doon jàngalee ak ni ma doon yaree nit ñi itam day fexe ba mu dëppook la nga xam ne mooy culture environnement bi ñu nekk loolu nag lu am solo la ndax sëriñ bi buy taalif di jàngale da koy defee ci anam koo xam ne ñi nga xam ne ñoom lay jàngal wala ñi nga xam ne ñoom lay ñi nga xam ne ñoom lay yar dana mën a dëppoog seen culture mën a dëppoog li nga xam ne xam nañ ko ci réew mi itam maanaam mu nekk seeni aada maanaam ñi nga xam noonu la nit ñi dundee ndax tabian itam dafay am solo ndax dafay jiyee ci doomu aadama wala boog li ñuy tuddee bii am muy environnement bi ndax dañuy wax al insaan ibni biatihi faaw mu fexe ba loolu jeexital ci moom nga xam ne ku jàngal ba yar ko ba noppi ci moom dafay yor taali dafay yor yarub taalibe dafay yor maanaam yarub murit ndax da ngay gis ñaari nit ki ku mu jàngal rek il faut mu def ci moom culture am wala boog la nga xam ne mooy tabian moo tax da ngay gis naar bu jàng koo xam ne dafa jàng ci arab yi ba ñëw naar bu sotti lay doon ndax naar yi dañ yem ci def ci moom xam-xam kese waaye dañuy fexe ba dugalaale ci moom seen culture ko defee bari weddeeg complexe maanaam yu bëree bari dafay nekk ci moom waaye da gis koo xam ne itam dafa jàng ca tubaab yi ba noppi itam dafa yor culture nasaraan nga xam ne seeni dund lay lay lay dund seeni waxin lay wax seeni colin lay sol ak yéen demee bu ko defee sëriñ bi nag dafa amoon xereñ gu toll ni moom ñi nga xam ne daf leen di yar li nga xam ne bëgg na ko ci ñoom daf koy def ci ñoom waaye ci anam gi nga xam ne itam moo gën a dëppoog seen culture ci wàllu waxin ak ci solin ak ci defin ak ci yëpp nga xam ne kon ay mbindam maanaam dafay jeexital dafay jeexital ci loo xam ne dafay dëppoog sunu culture waaye dëppoog itam sunu environnement bu du lool loolu rek boo boobaa maanaam dañuy wëlbati ko demaat feneen bu ko defee jël ci jikko ñooñu loolu moo tax itam sëriñ bi da ngay gis daf daa bañ lool ñi nga xam ne ñoom lay yar ñuy jaxasoo ak ñeneen ndax ñeneen mën nañoo jaxasoog ñoom maanaam def ci ñoom la ñu bëgg eh, am na wax ju ma waxoon naa inna tarbiyata taxtaaju ila al ixtiraa bil mutarabbi wal ukufi alayhi wa mulasamatihi nee na yar dafay aajowoo nga taqoog ki nga xam ne moom ngay yar waaye dafay aaje nga ak moom dafay sax itam nga nekk ak moom nga xam ne du ngeen tàggoo benn yoon mooy wal ukufi alayhi wa mulasamatihi nga taqoog moom itam loolu bokk na ci li nga xam ni Eh, daf ko doon def ngir bañ la muy def ci ñoom keneen di ko dind wala boog muy am jeneen jeexal di nekk ci nga xam ne comme xas ba noppi ci moom boobaa ko comme dafay nekk nit ku dafay nekk nit ku baax nit koo xam ne ab royukaay lay doon te itam li nga xam ni daf leen ci doon yar muy xam-xam yi nga xam ne daf ko doon yeesalaat di ko indi daf koo roye te ñi nga xam ne ñoo jiitoon nga xam ne am na ay xam-xam yi ñu tegoon di ko jàngal seeni nit nga xam ne ca la ñuy mën a ca ca ca la ñuy mën a xamee xam-xamu tasawuf maanaam tawxid ak fiq ak tasawuf danga dégg may wax ne tawaali fasaadaati ujaddidu naasixan li wajhi allati ala midaadi wa mirxami kooku mooy jëfi mu jaddid day fekk la nga xam ni moo ràppoon mu fexe ba yeesal ko waaye boo ko yeesal itam maanaam day indi la nga xam ni nit ñu baax ña ci lañ jaare woon ba baax mu fas yéene koo indiwaat ngir baaxal ci ñi nga xam ne ñoo mujj ci jamono lañ ko wax woon ci waxi imam malik jooji ma ne kon taalifi sang yi nga xam ne ñëw ma jiitu dama ñëw ngir yeesal ko waaye dama koy def itam ngir jëmmi yàlla dama koy def ngir jëmmi yàlla ndax nit ñi dañoo yàlla da leen di man maanaam dañoo bëgg lu bees nga xam loo xaw a yàgg tuuti dañuy dem ba loolu dañ koy ginnaawal dañ koy bàyyi ngir yu bees yi nga xam ne moo ñëw bu ko defee loolu nag daf koy jël defaat ko ci anam goo xam daf koy tëgg ba mel na lu bees bu ko defee nit ñi mën koo jublu gis nga a masalikul jinaan axyaytu fihima amatahu lwara min al ulumi isarahumul kara nit ñi dañ gannaawaloon wàllu xam-xam tasawuf ak téere yi nga xam moom lañ ci bind ni mu yàggee nga xam ne nit ñi dañ ko gannaawal loolu looy niroo loo xam ne nit ñi dañu koo dee ba ne kon ñëw nag ngir dekkilaat ko ngir dekkilaat xam-xam yooyu ndax nit ñi dañ koo gannaawal te ba nga xamee ni maanaam ak gëmmentu da leen a jàpp te ba nga xamee ne ay nelaw jàpp na leen kon serigne bi ci yoon woowu la jaar manam indi indicatif ndax yarkat yi bari nañ waye kenn ko nek nak bu ñëwee ak système ba nga xamni manam mom lay jël serigne bi am système indicatif bo xamni manam mom la jël ngir yar ci nit ñi yar tam ba nopi ci ñom daf leen di génne boole leen ak ñeneen lolu moo indi li ñi tuddel séxal séxal sax xeyna jëmëne yu mujj la xew ñukoy wax waye serigne bi mom lim da def moy defar nit ba nopi yabal ko mo delu ci ab dëkkam wala yabal ko manam mu mëna sañ ci kër bu ko defee bu demee feneen nag maanaam sañ ci kër boo ko defee ñeneen dañuy ñëwaat ci moom mu nekk jëwriñ boo xam ne day liggéeyal sëriñ bi ci ñoom di leen defar di defar seen i jikko ñooñu itam bu ñu génnee ñoom itam nekkaat seneen di defar loolu sëriñ bi lim ci defar ci aw nit kenn xamul na mu toll moo tax gis nga ñi ma yar liñ tabax ci ay dëkk yi nu mu baree te foo ci dem rek da ngay fekk itam maanaam nit ñi dañuy dañuy liggéey nekk jàmbaar ñoo xam dañuy sawar ak tàyyeel denc ñoom yooyu yëpp ma nekk loo xam ne kon dafa mel ni maanaam système éducatif bi sëriñ bi indi maanaam moom moo defar loolu te nañuy jàmbaaree ci liggéey naka noonu itam nañuy jàmbaaree maanaam ci euh, nekk ay liggéeykat naka noonu la ñuy mën a nekk itam ay jaamu ko te yàlla waaye noonu la ñuy nekk itam maanaam ay nite xam-xam nga xam ne ñett yëpp dafay daje ci ñoom maanaam complété mooy nangoo liggéey ndax dafa bokk ci nga xam dañ ko sëriñ bi daf daf ko daf ko fondé yoon wi waaye naka noonu jaamu yàlla itam naka noonu nga bañ koo gannaawal benn yoon naka noonu itam maanaam liggéey nga xam da ngay farlu di liggéey ngir mën a jagal sa jamono di liggéey ngir mën a yor sa njaboot di liggéey itam mën a am jom maanaam ngir am loo xam ni da koy mën a dundee te doo ko laaj kenn wala boog mu nekk loo xam ne xëy na da nga ca tuur ko lam ngir doog ko mën a am yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne sëriñ bi daf ko bàyyi woon xel ci ñi ma doon yar nga xam ne ci jaamu yàlla ak ci liggéey naka noonu di leen yar itam eh, di leen yar itam naka noonu maanaam ci wàllu xidma te mooy li nga xam dañ koy liggéeyal sëriñ bi te duñ ci yaakaar fay gu teew wala njëriñ gu teew waaye dañ koy def nag maanaam ngir yaakaari ko ëllëg te loolu itam dafa nekk liggéey boo xam dañ koy yaatal ndax dañuy jàppale ne li ñuy liggéey mu nekk loo xam ne ñëpp dañ koy jariñoo ci liggéeyal sëriñ bi la bokk liggéeyal yàlla ci aw nitam waye liggéeyal yalla ci serigne bi itam ngir lan ngir di fàggu ngërëmam ndax sun borom bu fekke da nga soxla ngërëmam di ko liggéeyal itam man ko ko jaari ci nit ko bax lool lañ xamoon nak motax ñu daal liggéeyal serigne bi mo jaral leen lepp itam yoon woowu la jaar ba defar jamonoom wala bok ba defar lu bare bare ci jamonoom comme niko ko arab ba tagge won nag bu ngi wax na antal murabbi bima rabbal amin bihi harfan bi harfin fa ma fin jiili charwaaka yaay ki nga xam da nga yare ci anam ga yantabi sallallahu alaihi wasallam don yare loolu moo tax yow daal dëgg-dëgg amoo maas ci ñi nga xam ne ñoom nga maaseel jamono. jërëjëf Serigne naa ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko ci laaj bi mooy Cheikhul Khadim taxawaay bi mu taxaw wuutaa kon yonent bi ci kaw suuf ndéem ab yonent du ñëwaat kon faw diina ji saa ba aajowoo ak yeesal kii ñëw ngir taxaw taxawaay yonent bi dina am nu muy taxawee ngir lam fekkoon jamono ji muy ñëw ci yàqute mu defar ko nga lim ci ni. bokk na ci copp gi sëriñ gi soppi jamono jooju ngir fekk na jikko yu yàqu la ko waral mooy pas-pas yi ñoo yoloboon mu fexe ba jaam ñi amaat yenn pas-pas yu dëgër yi fexe na ba nit ñi lañ daan jàng nu koy jëfe ndax fekk na fi njàng mi xëy na am na benn problème muy ku jàng boo noppee rek mën ngaa dem la nga jàng moom day nekk jumtukaay te xam-xam nekkut euh, lu dul ab jumtukaay waaye nag euh, lay yokk ba dëgg-dëgg mooy nga jëfe ko nga wax ne tamit bokk na ci li Cheikhul Khadim taxawee ngir soppi jikko yu yàq yooyu mooy bind ay téere téere yoo xam ne nit ñi dañ ciy tënku donte téere yooyu am na ñu bindoon lu mel suñu jiitu waaye daa xool lay yuq ba mu tënk ko ci téere yooyu mën koo jox nit ñi ngir ñu mën koo jàng ngir jëfe ko bokk na ci tamit mooy dafa xal aw yoon woo xam ne ci la yaree ñi mu jamonoon teel muy mën xëju tarbaw yi bokk na ci tamit dafa xamoon société bi muy dund dafa culture bi dafa xamoon civilisation bi moo tax ci li nga xam ni mooy mission dina mën a yomb bokk na ci li nga xam ni alxuraan da koy wax ni nag yonent bi may yónni ci aw nitam laa koy yónni kon yonent yi ñuy yónni ci seeni nit dafay fekk ñu xam environnement bi ñuy dund ngir mu mën leen a woo ban mën ko si bokk na si tamit sëriñ bi daan na moytuloo ñim daan yar ñim sóoboon ci yoon woowu ñu bañ a takkoo ak ñeneen ñi euh, kon lii nga xam ne moo tënk lépp mooy ku sëriñ bi defar ba pare tamit du la bàyyi nga des sa moom waaye da lay yebal ci saw nit ngir ñu mm. xool jikko yi nekk ci ngir ñu man ko rek ci yow dañu ñëw ci eh, sunu kàddu gu mujj ginnaaw yi yëpp am na sëriñ naa maanaam sëriñ bi naka la boole yi yëpp ba am résultat bi nga xam ne am na ko tey euh, maanaam naka la boole yi yëpp ba am résultat bi mu am tey tey jii nga xam ni moo waral eh, ni man di ballaloo ci wala di taataan ci ab teenam wala di taataan ci géejam ngir mën a faj suñu mar xondooñ wi ñu mar waaw kay jërëjëf ñu am di Moustapha Ka ci laaj ba am solo boobu bi waaye sëriñ bi de li tax moo am euh, résultat bi nga xam ne am na ko ci li ma doon def lépp mooy dafa xam yoon wa rek jaaru ko fa nga xam ne fa la ko war a jaare ndax ñett ngi nii yoo xam ne dañoo wax ni ku jóg faaw mu yóbbaloo ñett yëpp ngir jot ca muy wut bu fekkee ko am lu muy wut la mooy nit ka fa dafa war a am hadaf wala boog li ñuy tuddee iraada am naa bëgg-bëgg kat fale laa teg sama bët te bëgg naa faa yegg waaye loo def def ak njàmbaare itam bëgg faa yegg te jaaroo ci yoon wa doo tax nga yegg ci mbokk nga jaari ko ci yoon wa wa xam ni mooy tax nga yegg fa waaye il faut nga def taxarrub itam kon doo bëgg li nga bëgg ma noppi dal di toog croix bracelet la waaye da ngay def effort def taxaruk boo ko defee dal koy jaare ci yoon ba nga xam ni moo tax nga mën caa jot yoonu sëriñ bi moom dafa rëy bët ba mu jógee daf koo teg fa sori bëgg a nekk abdullahi am daraja ci yàlla ji ko may mu nekk abdullahi nekk xadima rasul bal sax asna xadim te yàlla def na ko mulkul lazil baaxil xadim jaxale asna xadim teg bëtam bokk ci waa ahlu badar te suñu borom defal na ko shahida lillahu bi anni waxidu min ahli badrin maanaxaani jaaxidu loolu yëpp nag mi ngi ko amee ci liggéeyal yàlla liggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax yonente bi ba mu bëggee nekk liggéey katam jaayanteeg moom ubaayiul yowma rasul al mustapha bi xidmatin wa asalullah al wafa yonente bi alayhi salatu salaam ni ko jaaral fii rabbi asaabaka bil himma moo tax yar googu itam sëriñ bi dal ci Euh, am na jaax maam dal ci réussir cent pour cent te nam ko defee itam dafa xam yoon wa dafa xam yoon wa rek ci ni mu ko doon defee ni nga ko doon misaale léegi euh, système éducatif ba nga xam tegoon na ko sëriñ bi dafa yew woon ci xam jamonoom loolu sëñ Mouham sëñ Cheikh Mouhamadul Basir daf koy wax boo demee ci mennul baaxil xadim mu ngi naa raa cheikhuna anna al kasala aslul fasadi diinan wa dunia wa huwa axlamu bi xawmihi a zamani nee na sëriñ bi dafa gisoon ni tayel maanaam nit koo xam dafa ker nga xam dafa tayel bëggule yëngu ba noppi bëgg am nit ñëpp nee loolu moom lu yàqu rek moo ko yàq dafa yàq diine di yàq addina te ne na sëriñ bi ko xamoon aw nitam la waaye ko xamoon jamonoom la loo tax nag daf leen di liggéeyloo ci li nga xam ne moo dëppoog ci li nga xam ne moo dëppoog seen tabian ndax sëriñ bi ci biir doon liggéeyloo nit ñi itam kenn du nekk day xam la nga xam ne mooy faj jàngoro ma koy liggéeyloo ci anam googa moom itam mu jàppoon la muy liggéey sëriñ bi la koy liggéeyal masalan am na koo xam ne dafa rëy nga xam ni moom def dara ci kanamu nit ñi loo xam ne dafay jàppale wàcce dara jaam la wala boog dafay wàññi dara ci xiima boo ko defee sëriñ bi daf koy yelwaan loo muy gàddu potam di yelwaan wala mu bàyyi ba nit ñi toog mu koy buub la wala yu ne demee boo ko defee loolu day dem ba day rey feebar boobu ci moom daawul bëgg itam nit ñi di am jot foo ñu toll rek dañ daa liggéey koo xam ne dafa tàyyal nga xam ne moom lii saafara si mooy di ko liggéey loolu bari nga xam du noppalu suba ngoon day dem ba tayal googu dafay dee nga xam ne léegi dafay nekk ab jëfkat ab liggéeykat nga xam ne dafay sawar loo tax da woon am jot mukk guddeeg bëccëg yëpp dañ ko daa liggéey wala buñ masaan liggéey bëccëg bi ba sonn guddi gi ñu ñëw di tudd yàlla di jàng ay xasida te bu demee sax ba nga xam ne guddi ga sori na lool bañ tàmbalee di gam-gamal gëmm ba dëkk sëriñ bi ñëw yée leen ni leen jóg leen ngeen liggéeyi àddina nelaw xaju fi sëñ Abdul Ahad daana wax ni bu ñu xamee nere bu guddi gannaaw sëriñ bi la eh, ndax nit koom bu fekkee amul ci lu mu nekk rek day day amuk jot te amuk jot moom dee daal dafay yàqal nit ki sëriñ bay jaxate ne na mayul barik jot eh, mayul barik jot eh, fàtte sax nu mu topp ci bëy de waaye ma nga naa nit ko amuk jot soo ko giseeg bët na ni téppét saytaane saakat bul ko dawee bul ko dawee xel dawee ko am xel ngir ko dawee xel mu sànni law yet waaw mayul barik jot ngir ko am ak jot kenn lu dul jot te ñëpp koy jot <laughs> kon barik jot moom baaxut waaw tax sëriñ bi dafa leen daa yar maanam ci li nga xam ne moo dëppoog seeni culture naka noonu itam eh, dafa daa fekk koo xam ne masalan dafa nay nga xam ne moom lu ne attan na ko moom di génn ci poosam joxe nga xam ne moom day diis ci moom lool boo ko defee kooku nag daf koy xemem loo sarax di ko xemem loo itam addiye joxe addiye ak li ci nekk ci ay njëriñ ni mu toll bu ko defee nag day dem ba dafay dee ci ab xolam nga xam ne léegi fu mu toll day joxe la nga xam ne yor na ko ndax sëriñ bi médecin la mu rabbi la kenn ku nekk xam na jàngoro ji nekk ci moom ak fan lay jaar maanaam ba dindi ko ci moom kullun qadirun bi adwa il qulubi maan yakfil muridina min anwaa shaqawaati kon ci ñoom dafa am expérience dafa am xibra lool ci jàngoro xol yi waaye te loolu itam jàngoro xol dafay jur maanaam te dig boroom bu ko defee moom dana xam nag fan lay jaar ba dindi texee di googu te mooy ba dindi jàngoro jooju ci moom kon sëriñ bi dafa xamoon eh, yoon wa wa nga xam ne ci lay jaar waaye xam itam naka lay naka la cay jaare ak naka la cay eh, maam dal dafa xam yoon la ba noppi itam xam naka lay def ba man cee am réussir di réussir sa loolu ñu ci joxe itam mat na misaal loo tax daa daa bëgg maanaam bari mi ñi nekk di jeexital ci moom ndax da daa sos ay ay dëkk te ku ne xam ne ne àll bi moom boo fi nekkee da ngay mën a dëgg ay tool yoo xam ne mën nga xool ba sa ba fa sa bët yam te doo gis fu mu jeexee nga xam nit ñi dañuy xëy di gont bu ko defee itam liñ ci mën a jàng mooy di dunde seenu ñàkk eh, naka noonu itam di fàggulu lew وطلب الحلال فرض fardun لكل مسلم بغير وهابي waye naka noonu itam eh, nit ki liggey gi nga xam da koy liggey ci àddina man di fàggu dara itam naka noonu ci lay meuna defare defaree ndax wala tansa wala tansa nasibaka min ad-dunya bu ko defé loolu lepp nak dañu wër di delsiwaat manam di xam problème yi nga xam ni li ko indi moy jafé jafé yàqute jiko ak itam naka les meuna fexé ba safara ko ci njangalim serigne bi Euh, bu ko defee yooyu yëpp nag aw yoon la boo xam sëriñ bi da cee jaaroon ci la fexe ba defar jikko ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel ñoom la ñoom ñoom la nekkaloon waaye ne la fexe ba defar jamonoom itam ba noppi réussir ci te loolu itam jeexit ji waxtu bu nekk ñu ngi koy gis boo xoolee di ko teg bët. waaw bu ko defee lañ koy mujjee rek muy mu bokk ci jeexit yi nga xam ni jeexital na ci société bi ñuy dund waaye jeexital na ci di yi lool yitam mooy liggéey bi nga xam ne sëriñ bi daf koo liggéey ba réussir ci bu dee li may la wax léegi maanaam ci wàllu faggu ak nit ki itam di looy ñax ko boppam loolu sëriñ bi daf ci daal soññi taalibe yi wax na ne ba ñuy tabax jumaa yi eh, bim leen di sant ab liggéey boo xam ni daf leen a laaj ne kenn ko nekk na indi fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñett xoroo fi tuubaa lépp biñ ko dajalee mu nekk euh, ab lim bu takkoo takku ci jamono yooyee ne leen du dama ko soxla wala def ci dara moo tax ma laaj leen ko waaye dama leen di wan aw yoon muy ëllëg li ngeen soxla na ngeen def nii te bañ a sukkandiku ci ñeneen ndax boo sukkandikoo ci keneen ku la mënal nga sañal la te ku lay sañal nag na fekk mu doon ka la war a sañal mooy li wolof di wax naa ku la ëmbal sa senq ku la ku la ëmbal sa sanqal ëmbal la sa kersa te loolu mooy li am itam nag te loolu gis nga ni mu jeexitale tey ci jamono ji nga xam ne ko mës a ñëw ci njabootu sëriñ bi rek mboolem luñ mës a réaliser la nga xam ne moo koy réaliser lépp ñàkku taalibe yi lay doon ni ko alxaaji baara daa waxee naa jumaa yi tuub maanaam lépp lu fi taxaw rek juróom-juróom yeeg fukk-fukk yi nga xam taalibe yi dañ koy dajale moo ko fi taxawal moo taxawal jumaa yi tuuba moo taxawal jumaa yi masaalikul jinaan jële nga xam ne ay milliards lañ ci def moo nar taxawal université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy liggéey itam yàlla na sotti ak jàmm moo indi itam Touba ci kanam nga xam ne Touba bu ñuy yaakaar ci moom maanaam mu jekk ba na ko sëriñ bi bëggee woon mu amee ni naka noonu itam ci loolu lay amee kon loolu aw yoon la boo xam ne sëriñ bi daf koo wonoon waaye jàngale ko itam e, naka noonu bokk na ci problème yi nga xam ne daf ko daf ko fee fekkoon itam sëriñ bi fexe ba liggéey ci te am ci résultat bu kawe itam mooy nit ñi nañ daa wayafalee julli yooyu moom dafa matoon di dellusiwaat dafa matoon di dellusiwaat bu baax a baax koo xam ni sëb sëriñ julli na ba julli ci kawam ndox moom wax dëgg yàlla yoom julli waloo ko wayafal benn yoon ci julli ci waxtu rawatina liggéeykat yi nga xam ne moom dañuy nekk ci marché bi yendu fa ba ngoon jot bu ko defee dañuy bàyyi ba guddi ñu dem seen kër sango nag bu ko defee dal di dóorandoo juróomi julli yëpp parax paraxee ko mu jeex ak sëriñ bi ne ci jàngale nam ci sonne waalam bi anna afdala taaxaati salaatuna fi awwalil awqaati loolu xadis yonte bi alayhi salaatu wasalaam la ci tënk ci njël benn waxtu moo gën ci mboolem topp yàlla yi ba ñuy laaj yonte bi alayhi salaatu wasalaam ma ahabul asiya ilallahi taala loolu la wax asalaatu ala waxtiha wala asalaatu fi waxtiha te itam daf ko jàngale ci ay jamonoom wax nañ ne mës nañoo julli ba noppi mu génn dal di bind ñaari wama di wamaa njëkk ji maa ngi ci namm wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala yàlla képp ko mu bind muy doomu aadama moo la warlul ak dundam moo la warlul sa dund kon dund gi bu mu la yitteel wa ma xalaqtul jinna wal tax mu bind ngir ñu jaamu ko kon nag bii nañu yitteel li tax yàlla bind ñu mooy ñu jaamu ko kon nañu sonne jaamu gi boo ko defee lee nga xam ne yàlla moo ñu ko gàddul nag loolu moom ñu bàyyi ko ak sunu borom kon yàlla daf laa ga daf laa daf laa gàll gàddul la lam la gàll mooy jaamu yàlla lam la gàddul nag mooy dund gi mu ne kon loolu bu mu leen yitteel waaye taxoon nag mukk ma doyal dal nit ki ni nga xam ne la war a sonnee ci addinaam itam tam maanaam di liggéey di fàggu ngir mën a jegal addinaam bu ko defee loolu itam sëriñ bi daane ci soññee bu baax a baax dégg nañu ko itam ka nga xam ni daf daa faral di dajeeg moom ci jàkka ji lu bari benn bis julli si sëriñ bi xool gisu ko laajte ko ñu ne ko dafa tawat ba dal di génn ci jàkka ji dem di ko seeti waaye ba mu koy seeti itam naka la ko jëmm ji gis rek daan di bërit sëriñ ba daan ni ko bett nga ma xaw ma ne woon ko ànd kàttan gu toll nii dara dana ko teree julli ji lu dul ñu ne ak ruuxam ma ngay génn jëfew itam lépp loo xam ni daa nañ ko def ba waxtu julli jot te bay wuñ ko dem julli ji ba sëriñ bi ñëwee dafay tas la lool dafay yàq la loola kon loola ba tey maanaam gis nga yoon wi nga xam ne ci la jaar moom itam ba rek la ko nga xam ne ñi xam yoon woowu itam yar leen ci ñoom itam ñoom itam ñu doon yare ci yoon woowu kon dañoo xam jaamu yàlla xam dajoo ba mu am moo tax ñu fonk ko lool nga xam dañ ko yemal ak dara Eh, eh, te loolu itam bu amee maanaam wayefal jàmm yàlla yi xam nañ ni muy indi zaharal fasad fil barri wal baxri bi ma kasabat ay dinnaas moo tax boo gisee problème yi bëri yëngu-yëngu yi bëri lu ci bëri ñaari loolu rek moo koy indi ndax yàlla leen di digal saa boo ko wayefalee itam wan la boppam yàlla day jëflante sëñ bi tam nekkoon non violence nga xam loolu itam na ko doon def ko doon dund ba tey maanaam di woo nit ñi jëmee ci jàmm lépp loo xam mooy indi jàmm ñu di ci nekk دوحنا آه، السلامة في نية الخير وقوله وفعله ومن وجه الخير إلى مسيء فإن الخير يرجع إليه نحن جمع دال ميغي تي دي يين لو باخ دي واخ لو باخ دي جيف لو باخ تا بو فكي نيت كي داف لا جمالي اف صفان صاح نيل يونا فيها با فاي كو لو باخ رك تا خام لو باخ نيت يو لي ديل سي وات محبين الخيور لجميع خلق إلهنا المقدم البديع ين نيبو na ngeen bëggal mbindee fi yàlla yi lu baax na ngeen leen bëggal ay yiw ndax yàlla ci boppam lu baax la bëggal ay mbindeefam bëggalu leen mu ko aw ayi fa innahu subhanahu la yarda li xalqihi charra adimal xarda kon nag na ngeen saxal di leble lu baax ndax lu baax la nga leble rek la la suñu borom di fay wolof di wax naa ku ñu fay sa bor nga ber la nga mer la nga leble moo baaxut tabaxan ba demee itam kon na ngeen di leble lu baax euh, bu ko defee itam bokk na ci anam gi nga xam ne ci la daa jañee maanaam lépp loo xam ne jëm ci wàllu xonfa la wala jaay doole wala ñuy demee ñoom daa wax naa na euh, buñ leen tooñee na ngeen di jéggale li tax ma leen koy digal mooy dañ maa tooñ ma jéggale waaye suñ boroom daf naa daf maa fay ba noppi fayul ma gisoo liñ ko def lépp tafamu ma jëmay afawtu anil aadai turun li wajhi man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfaw maanaam bañ di toppante yàlla daf ma dañu ma tooñ ma jéggale yàlla fay ma fayul ma watax daana wax ne itam kuy tooñ du mucc kuy fayu du noppalu kon yooyu yëpp nag gis nañ ni mu jeexitalee ci jamono nga xam ni ndaw ñi ni ngi bëgg xam-xam ku jóg itam tàmbali ci téere sëriñ bi fi ne boo demee daanaka ci àll bi lim feesa dell la ay ay murid yuy jàng yu di jàng te ko gis mu jàng itam fi ne jàng ne téere siñ bi ba jeexal ko ngir bëgg di yaatal na ko ten itam gis nga wàllu dimbalante yi loolu lépp daal mën nañ ni jeexit yi nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi woon la ba tey ndax ñi sëriñ bi doon yar dañ doon génn di yaraat di jàngalewaat te gis nga itam sëriñ bi yar boobu ni mu jeexitalee ci ak njabootam te ak njabootam itam gis nga ñi nga xam ne maanaam ñoom lañ yar nga xam ne loolu jamono booy xool rek moom ngay gis liñ ci gis lépp mën nga ne ci sababuk sëriñ bi yar ba mu doon yar ak defar ga mu doon defar jamono ak xam-xam ba mu doon tasaare ba moom lañuy gis noonu moo jeex jeexital euh, kon mënees na yemale foofu tomb boobu. Euh, jërëjëf sëriñ Cheikhouna noo ngi lay sant ci turum mbooloo mi nga xam ni dañoo daje ngir jariñante ci xam-xam jariñante ci mbaax waaye tamit di fàttalante seen biir li nga xam ni moo leen tax a ñëw ci àddina moo tax lu fi. xew ci àddina rek muy actualité danañ ca indi ay woroomi xam-xam nu càmbar tomb yooyu ak euh, lan mooy solution bi buñ ca eggee yàlla dogal nag euh, yow nga bokk ci kër gi moo tax dañ lay cant ci biiru cant di yàlla borom bi defal la tawféex euh, am mbégte lool nga sëriñ bi bi mu ñëwee ni mu fekkee jamono jamono yàqu lool ci ay jikko jikko yoo xam ni yu yàlla gërëmut la yu yonente bi sallallahu alayhi la euh, mu fexe ba la yàlla bëggoon ci ay jaamam la yonente bi bëggoon ci ñi ko yàlla yónni woon sëriñ bi euh, tabaxaat société bu mel noonu fexe ba jikko yi nga xam ni moo taxoon yonente bi ni moo tax suñu borom yónni ma ngir ma mottali si ko sëriñ bi jikko yu rafet yooyu mu tàggat ci aw nit ci jëfinam tàggat ci tàggat ci aw nit euh, mbindam nga indi si lu am solo nga xam ne dinañ jaarale ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi mu tënku ci alquran ak sunna sant nañ la bu baax nag di la ñaanal borom bi ko wa taala defal la tawfiq ak jàmm di am mbégte di la ñaanal tamit màggaluk jàmm di wax ni daal kawe na njort waxtaani kawe na njort kawe na njort lool ñoo ngi lay sant bu baax nag te di la gërëm kon loolu lañ leen fi indiloon muy Serigne Cheikhouna Mbacké Gànnaar di borom xam-xam di waykat di bindkat wax dëgg yàlla di ko am yitte lool tamit di ko am yitte lool te xam-xam jaral ko lu nekk sant nañ la bu baax ci turu mbooloo mii nga xam ne mooy alxaq saabit di santaan mbokk yi fi jotoon na jaar yëpp ñoo ngi koy ñoo ngi jégg lu baax na xëy na lañ juum rek ci waxin wi wala ci laaj yi ci ñun la waaye liñ amoon yéene mooy defar nam gën a matee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim damay xasida gi ñu tuddee yóbbalub safar saadu seeru safarul xayr ngeen baaxoo def weeru safar bu nekk jëme ko ci seexul alxadim def ko ci baxaru mutadaarak mu nekk ab laamiya toll ci ñaar fukki bayet ak juróom-ñett xaru fi tuuba sayxuna jógatil bakk mbër ma ñu fal mutadaaraku tey lañu taamu ma jël sayxunaa jógatil bàkk mbër mañu fal mu tadaara ko tey lañu taamu ma jël di ci tagg ka kañ turandoo bi ma am mu di dëgg sëriñ di ko tedd ajal di ci tagg ka kañ turandoo am mu di di ko tedd ajal sayxunaa bamba jëwri ni ngeen ji yeneen di ko xejje fa buur yàlla azza wa jal fu safar gi ñëwee ak i mbégte yu lëw dañ di way ko di fàttali lim nu defal di ko wax ci wolof yu nu xam mu di ay bind yun di jëlaat ca doxin wa jëlal dafa xettale xeet wi di waa jamonoom ña mu fekk fu xat tax mu am nu ñu mel yàqu teg jikko réer ñépp riir wuti at dina ngëm gu woyof jàpp ñépp sonal fekk yitte yi suufe amuñ dogu sax gu dëgër mën a dot mën a not noon yi dëkke di fel fekk it yi suufe amuñ dogu sax gu dëgër mën a not noon yi dëkke di fel ci anam gile nag la sëriñ bi lay ñëw fekk gaal gi di suux amatul lu ko kal mu taxaw di joyanti la dëng di jël yitte yi jëme kaw ndaxte loolu la tal yoonu tërbiya wim jëla gaaw ci defar di ndigal lu mu jël ca yoneen ba ko fal rabbi xayra xadiimi ya man soxibuuka bi himmati man sabaqu bi amal wile yoon ci la jaar ba defar jamonoom ak i xeet lu ci génn tasaat di jagal ci la yeesale sun nakasaa gile diine nde xàll na yoon bi mu leer di doxal dëgëral nga mi nit ñi ci yàlla ba seen paspasit mujj sellu ñu sellale xol yeesalaat la di xam-xami diine di jàngale di ca yeete di jël di yaxal di aqiida di fiqhu tasawuf itam bu ne am na ci kaggu mi ngi ñu toxal lu mu taalifalal la njëgam ko ngirit nañu jàng ba xam bu ñu réer gi sonal bari lool xasidaat yu mu bind di julli di tagg yonen bi di wax na mu mel di ca ñaan ak a sant borom bi di tudd ko ak di ko woote jihaat ca la jël di ci tuub am ca yooyu dafa feeñ am itam yu mu nëbb fa laqu ba bët du ca dal sant yàlla lu war la ci nun ci sëriñ bamba mim nu andil mu di kenn naxasol am na ndam ci liggéey bi rafet na bu wér mu ngi jeexital it su ne saa xalamal nanu sàmm ndondoom li mu bàyyi de bàyyi ci di yokk ko ak di wagar ko xamal loolu rekk di loolu rekk di sunu warugar nanu sax loolu rekk di sunu warugar nanu sax ci la yàlla defal lu yiw ak sell xel mata xawlu a ñaan yàlla ngir mu fayal nu sëriñ ba nu gëm ndaxit mata xaw mata xawlu te ñaan yàlla ngir mu fayal nu sëriñ ba nu gëm ndaxte moom la jëfal te defal nu ngërëm ak i ndam ak i pal ñaan ko mujj gu rafet bu ñu dar radikal te defal nu ngërëm ak i ndam ak i pal ñaan gu rafet bu ñu dar radikal rabbi salli rabbi ala xayri wal ali was sahbi fekk denu yii mi ngi dal rabbi salli ala xayri xalqika wal ali was sahbi fekk denu yii mi ngi dal ali was sahbi fekk mi ngi dal ala man ittabaal huda